Euh, mm-hmm. loolu yëpp wax dëgg yàlla dañuy wax ni xul jaal xaq mm-hmm. wa zahaqal baatil la alxaan wax mm-hmm. euh, yàlla moom euh, lu dul dëgg mënta sax mën nga ko génnee nag mel ni loo am tuuti temps waaye day ndërmeelu ndax dëgg rek mooy sax dëgg mooy mujj donc président Bassirou Diomaye fay ak équipe am yëpp muy président Ousmane Sonko ak ñëpp ñu mu àndal du ñu ay du ñu bañ mag ñi du mm-hmm. ñu ñuy xeex tarixa yi ndax tarixa kenn mënu ko xeex mm-hmm. tarixa ko xeex da ngay sànku mm-hmm. ku xeex nitu yàlla yàlla soob nga xeex ndax yonent sasam moo jàngale ni képp ki nga xam ne mu ngi xeex euh, ay wàllu yàlla mu ne dafa mel dafa dugg en guerre contre yàlla ndax wàllu yàlla yooyu ñoo fi ñoom ñoo fi taxaw borom bi sax donc loolu kenn amul xelu xalaatu di leen jéem a xeex te ku jéem a xeex sax di nga di nga sànku doo ci am ndam donc kon ay nit la ñi xam ne xam nañ luy Sénégal xam nañ ni kilifa diine yi ay ay ay ay ay valeur lañ ci dëkk bi muy benn ay monument lañu ci cohésion sociale bi nga xam ne ñoom ñoo ci war a njëkk jouer ay rôle ay monument lañu ci même diplomatie culturelle mhm. et religieuse bi nga xam ne Sénégal daf ci war a daf ci war a daf ci war a inscrire mhm. ñoom ay relais lañu xam ne mënu leen si ignorer maanaam état mënul dem sans sans sans la religieux loolu moom vraiment mhm. euh, question boobu jàpp naa ne kon léegi nervi religieux yi nga xam ne ñoom loolu ñuy dundee <laughs> tappalekat yu mag yooyu question xam naa ils vont plus le euh, secouer ñaareel bi nag mooy euh, le voyage la Mauritanie lu am solo la Euh, Pape Maguette da nga ko da ko laal léegi ba ngay ba ngay ba ngay introduire. Mm. dañoo yàgg am des valets de l'Occident. Mm. des présidents yoo xam ne ce sont des objets euh, de l'Occident. Mm. ku si yëg au pouvoir mbébétam bi gën a rey mooy daw dem tugal euh, gis président tubaab yi photo toog ñoom. ma wax la ne la am na président yoo xam dañuy fay à l'Élysée Mm-hmm. ak ay ay ay attaché di fay pour ñu gaawalal leen un rendez-vous avec le président de euh, président Macron. Mm-hmm. pour ñu mën a ñëw taxaw rek photo ak moom pour dire que rek. Mm-hmm. président africain yu si bëri dañoo feebar. Macron mi nga xam ne waa réewam sax na Macron bu ñàkk solo boobu nga xam ne vraiment kenn jox ko cër. Ah. pour dire que les présidents africains dañoo am complexe yu extraordinaire. donc kon dañ doon xaar kon ci rupture président Bassirou Diomaye Faye. fay visite pays africain moo ko war a moom mhm. donc vraiment loolu moom euh, lu ñu ko doon xaar la te alhamdulilah il a compris ces enjeux là ñu bëri ñu doon yaakaar ni dafay dem Mali ndax Mali suñu voisin la bi nga xam ne mhm. Macky Sall euh, def na lu bëri li nga xam ne dafa dafa yàq suñu diggante ak Mali mhm. ci topp bëgg-bëgg tubaab bi waaye soo gisee choix wu Mauritanie bi choix bu am solo la Pape Maguette loolu rek may may ma ñaari tomb rek ma andi fa ay leeral la bi si jiitu Euh, président Ghazouani xam mooy président Mauritanie actuellement. mooy le président en exercice de l'Union africaine. donc moom une pierre deux coups la bu demee jug dem seeti président Mauritanie dem na seeti cinquante quatre présidents du continent africain. Mm. maanaam li geste bu fort la bi nga xam ne aspect bi au lieu d' aspect pétrole ak nangam. aspect bi aspect euh, stratégique la mm. Mm. aspect diplomatique la bi nga xam ne waruñu ko bañ a euh, analyser bu ñuy xool visite boobu muy benn ñaar mais ñu mag Mauritanie ñoo am ay ressources yu bëri ñu bokk te ñëpp xam nañ aujourd'hui ce qu'on appelle les proxy wars maanaam ay xeex la yi nga xam ne ay puissance ñoo koy organiser ci ay yeneen dëkk ci yi nga xam ne am na ay intérêt stratégique wala ay ressources yi nga xam ne ñoom jëmeeñ fa créer chaos sax pour mën a am dara ci dëkk yooyu donc dëkk yi nga xam ne ils di partager ay ressources dañoo war chaque fois di di di di di di di di di di di waxtaan ak di diisoo pour bañ kenn xaj seen diggante donc kon visite boobu tamit dafa amaale solo ci wàllu googu waaye ñetteel gi Euh, grande tortue ni mooy GTA. Mm-hmm. muy benn puits bi nga xam ne puits de gaz bu yéeme la bi nga xam ne Sénégal ak Mauritanie ñoo ko bokk. Mm-hmm. puits boobu soo fàttalikoo depuis 2012 dañu commencé woon def recherche yi. Mm-hmm. ci 2015 dañu am effectivement les résultats waaye ni gaz baa ngi fi. ba ñu waxoon sax ne euh, li fa nekk mat na 25000 milliards. Euh, de puits mètre cube maanaam li xam ne moo fa nekk ci réserve nga xam ne ko bëri na. ci 2018 la ñaari dëkk yi signé ay accords. 2018 euh, euh, donc Sénégal Mauritanie ak ñoom BP ak euh, ak ak Cosmos. Mm-hmm. Cosmos moo defoon gëstu yi. Mm-hmm. donc boobu ba léegi nag ñu prévoir ne 2022 la ñuy commencé exploitation bi. Mm-hmm. en 2022 exploitation bi jotul am. ndax dafa am ay jafe-jafe yu bëri yoo xam ne amoon na ci àdduna bi. Covid bi jaar na fa. guerre Ukraine bi ñëw na tamit jaar si. ba ñu mujjee dàq exploitation puits boobu dañ koy yóbbu léegi ba 2024. may fàttali ne. ci janvier 2024 bii président Macky Sall dem na Mauritanie pour xool du ñuy waxtaanee mbir moomu ndax am na ay ay sew-sew yu fa xew yoo xam ne euh, yenn yi ci euh, coût yu wàññeeku maanaam inflation bi am ci àdduna bi moo ko andi mhm. maanaam yu bëri ñu yaakaaroon prévoir ko coût yi changé na mhm. leneen li euh, matériel ñu doon jëfandikoo foofu sax mhm. retard bi ci yenn euh, problème yu am fële ci Orient moo ko andi leen li tamit mooy les coûts supplémentaires yoo xam ne ci njëlbeen dañ ko xaymoon ci 3 milliards mais jamono bi dem na ba mujj nag 9 milliards maanaam lii vraiment te lii responsabilité waa waa BP la bu responsabilité benn si ñaari état yi donc lii nag ñaari état yi kon foog ñuy yëgu waxtaan xàccendoo dóorandoo pour bañ a am lorange mmh. ci li nga xam ne ñoom ñaar kenn ku ci nekk mu ngi ciy xaar lu Euh, ñu war nañ commencé ci deux millions trois cent mille tonnes. Mm-hmm. a tàmbali. phase deux ak trois war nañ commencé dugg ci dix millions de tonnes. Mm-hmm. et lii dina ay impact ay jiixit yu bëri bëri. Mm-hmm. ci suñu énergie déjà te xam guerre énergétique jamono bi ku ko wax. xam la mooy la géopolitique autour des énergies. Euh, nga xam ne vraiment ñiy si xalaat yëpp xam nañ nu mu taxawee. waaye surtout en terme d' ak en terme de ressources. yu muy andil état. Mauritanie instant dañoo dañoo leb diggante commencé gul exploité. Mm. donc kon Sénégal wax dëgg yàlla dafay yell. Mm. Euh, et dafay yoon première visite bu président war a def. Mm. ci wàllu stratégie. ci wàllu diplomatie mm. ci wàllu économie mm. ci wàllu géographie mu tànn dem Mauritanie mm. encore que le président mauritanien ñëwoon na euh, fekkee prestation am encore que woo na ko félicité sax avant bi ñëw mm-hmm. kon dafay yell wax dëgg yàlla mu beral ko première visite boobu Sénégal Mauritanie wax dëgg yàlla ay fer yu yàgg lañ euh, diaspora sénégalaise bi dans l'Afrique de l'Ouest ginnaaw Gambie Mauritanie ak Mali la Sénégalais yi gën a bëri mm-hmm. euh, ci biir Afrique de l'Ouest bi à part Europe mm-hmm. donc wax dëgg yàlla visite boobu lu la te lu ñuy ñaan mu la ndamu visite boobu ndam la ci Sénégal euh, ndam la ci Afrique mhm. ndam la ci souveraineté bu ñuy woote ndax jëkk Pape Maguette mhm. souveraineté bu ñuy wax ci économie mhm. dafa ànd ak souveraineté énergétique dafa ànd ak souveraineté si wàllu diplomatie ngay xalaatal sa bopp di doxal sa bopp fu la neex ñi bañ la di joxoñ fii ngay dem wala fee nga dul dem donc te ñun dañoo toll fii xam dëgg yàlla ay réew la ñuy xam ñoo ak dañoo am yëg-yëg dañoo am ay aspiration yu kawe ci ñun ñooy ñan mm. fan la ñu bëgg dem ak lan la ñu bëgg def mm-hmm. et lii jàpp nañu fi àdduna toll mm-hmm. réew duñ ko tànnalati insha allah rabbi mm-hmm. donc vraiment ñu ngi am contentement ci macha allah ci dox macha allah euh, mu nekk lay taay bu ñu ubbee macha am na solo transition ma dem ci euh, euh, Mamadou Ibrahima comme moom conseil en diplomatie économique wax na ne njariñim am am na ko ba ci wàllu diplomatie ci côté économique yëpp loolu wàllu woo sa wàll la bu ko defee nan ngay jàngatee tukki bu njëkk bi nga xam ne njiitu réew mi def na ko bitim réew njëkki Mauritanie gi nga xam ne suñuy dëkkandoo lañ ndax boo fa demee sant yi fa nekk yëpp am na Sénégal <laughs> nga ñëw Sénégal sant yëpp am na Mauritanie mhm. ñey jóge fii di sëy fii ñi la jóge fële di ñëw fii di fi sëy kon ñu nekk ñu nekk ñu nekk benn daal nooy gisee tukki nemmeeku boobu waaw Pape Maguette euh, tukki nemmeeku bi dina jafeñ nga gën a xóotal ci naaw bi Cheikh Omar professeur Omar duggee ci li nga xamante ne nii. Mm. Ah, ñu ngi koy tuddee la diplomatie de proximité. Mm-hmm. la diplomatie du du voisin. Mm-hmm. bien du voisinage. Mm-hmm. Ah, wax na ko ci laytaay bi nga xam ne moom la ubbee. Sénégal dafa yàgg nekk pays boo xamante ne ni tradition démocratique am ak tradition diplomatique am ubbeeku la. waaye li ñu gënoon a gis. Mhm. gën ko tàmm ci diplomatie sénégalaise mooy diplomatie boo xamante ni dafay privilégier. Mhm. le monde occidental. Mhm. diplomatie de proximité bi nga xamante ni moo ñu war suñu digganteeg nos pays voisins. daaw ñu ko doxal nañ ko war a doxal. may fàttali sama bopp di fàttali ñu ñuy seetaan ne. Euh, bi yàlla dogalee ci. réewum Sénégal. ñu fal ndaw. ndaw boo xamante ne nii ca njëlbeen ma parteem mi ngi tudd Pastef ba pare jiital ci idéologie panafricanisme ku wax panafricanisme méngale ko ak diplomatie nga xam ne donc mënoo jéggaani dara weesu Afrique donc visitam bu njëkk mu jagleel ko Mauritanie Eh, Cheikh Omar wax na ko lu jaadu la waaye rupture yi dafa yemut foofu rupture yi yemut ci kàddu ndax soo gisee depuis accession à la magistrature suprême de son excellence monsieur le président de la république nit ñaa ngi natt lu ñuy natt mooy discours parcours et acte posé. ñett yooyu la nit ñi nat yàlla def acte bu njëkk. mi ngi ko defee discours. à travers deux discours. discours boo xamante ne nii ci investiture la. ak discours boo xamante ne nii c'est à la veille de notre accession à la souveraineté internationale. ñaari discours yépp ñu natt ko. gis ci mu yëkkati kàddu. ne moom de. dina ko jox gëdd boo xamante ne nii ci gouvernance am dingeen xam ne doomu Afrique moom la jiital lëkkaloo Afrique moom la jiital dooleel Afrique moom la jiital gëtam làmmiñam ci Afrique la koy gën di jëmale waa léegi nag soo passé discours bi nga ñëw ci les actes posés actes posés mooy que visitam bi njëkk ci pays africain la ko jëmale Cheikh Omar wax na li ko lal waaye tamit yeneen rupture yoo xamante ne nii ci mhm. acte yu mu posé mën nga koo gis mhm. moo à travers la formation de son de son gouvernement à travers noo ko jàngatee le premier ministre mhm. waaw dañu nekk dix-huit millions de Sénégalais de Sénégalais son excellence de la président de la république avant mhm. muy accéder à la magistrature suprême am kàddu yu mu jëmmal ne gouvernement vingt cinq membre ci lañ jëm dañ ne wax ja mhm. jëf ja ñu méngoo doon benn mu jëfe ko mhm. ñu noppi ci loolu mu ne jub jubal jubbanti mu nekk triptyque boo xamante ne nii c'est très intéressant parce que souvent dañuy wax compétence Pape Maguette may bokk ci ñuy wax ne Sénégal du compétence moo fi ñàkk. Sénégal li fi ñàkk le président de la République daf ko résumer ci ñetti kàddu yooyu. jubal jubbanti jubbanti. ci kaw. au niveau de la des stations gis nañ ci triptyque boobu. gis nañ ne am nañu mu tànn ñoo xam ne nit ñi am nañ une présomption positive. ci ñoom. ci ñoom mhm. ne jub nañ te dinañ jubal te dinañ jubbanti mhm. waaye dafa yemul warta yem foofu mhm. ndax Sénégal bi nga xamante ni mi ngi ci circulation mi ngi xaar rupture bi mu gis ci kaw mu gis ko ci suuf maanaam au niveau de la circulation mu gis ne les fonctionnaires la police la gendarmerie ñu ngi jub ñu ngi jubal ñu ngi jubbanti mu gis ko ci école yi ne ñañu fa teg ñu ngi jub ñu ngi jubal ñu ngi jubanti. mun gis ni ñi nga xam ne ñoom la ñuy dénk ay direction war mm. leen dénk ay ay tànk ci réew mi. Mm. ñoom tamit dans leur quotidien ci seen jëfin. Mm. ñu ngi jub ñu ngi jubal ñu ngi jubanti. Mm-hmm. maanaam ci gàttal. Mm-hmm. dañoo war a passer ci une perception négative. Mm-hmm. parce que euh, anglais dañuy wax perception is reality. perception bi nit ñi amoon. mooy dëng mi ngi ci kaw. léegi naka lañ mën a def nag ba perception boobu wàcc à la base. Mm-hmm. li mu commencé jubal ci kaw. Mm-hmm. nañ ko commencé jubbanti ci suuf. Mm-hmm. ba xale bi nga xamante ne nii mi ngi ci circulation bi yor otoom. gendarme bu ko arrêté policier bu ko arrêté. mu ne une nouvelle perception est en train de s'installer au Sénégal. la perception di jub jubal jubbanti. fekk perception boobu yëgut à la base la ca kaw. du am njariñ mm. donc rupture bi nga xamante ne installé nañ ko fi instant bi nii au niveau du sommet mm. sénégalais yépp muy man muy ñi nekk ci réew mi ak ñi mm. nekk ci bitim réew bi mm-hmm. ñu ngi xaal l'installation d'une nouvelle la naissance du nouvelle perception mm-hmm. positive et une nouvelle présomption positive ci ñi nga mm-hmm. xamante ni ñoom la ñuy tànn ginnaaw bi nga xamante ne nii ah, ñi mu tànn ñépp tey nit ñi d'accord nañ ci seen xam-xam